li nga xamante ni jamono ji yoot na ko di wàllu yoon te moom mu leen mu jàpp ne euh, ne lii de lépp ay faagagal la jëmee ci euh, ci euh, ci ëllëgu politique xam nga bu ma gannaaw ba ma nuyoo le président Ousmane Sonko di ko encourager di ko féliciter ci réussite manifestation boobu. Mhm. ñoom ñu réussir non avec avec avec maest d'une façon exceptionnelle wax dëgg mhm. yàlla day wone ni loolu ngay laaj. li ma la doon wax sànq ni président Macky Sall dafay nasaxal yoon loolu moo ko gën a wane man du ma wax sax nag wax dëgg yàlla ci cas bi tax ñuy yóbbu Ousmane président Ousmane Sonko tribunal parce que suñu diinee da koy tere suñu diine day tere ñuy wax ci yooyu. Mhm. moo tax man duma ci mos a wax du ma ci wax mukk li ma leneen li ma ci wax rek mooy ci li jëm ci wàllu yoon. Mhm. président Ousmane Sonko sénégalais yépp koo ci wax ak koo ci laaj dina la wax ni liñ koy jiiñ defu ko. te ñun jullit dañ ñoo wax sax sa moroom jullit bu ñu ko tuumalee non weddil ko moo tax ñun man ma di ko weddil ñu defu ko lu ñu ko fa jiiñ defu ko. Mhm. yam fanaat la ca des du ma ca dugg du ma ca sori. Mhm. mais li jëm ci wàllu yoon li jëm ci wàllu yoon enquête yi ñu def juge maam Diallo instruction bi mu def non la ca doon dëgg bu doon yoon président Macky Sall amul mainmise ci yoon non foofa day def non lieu parce que wo ñi ki nga jiiñ bu ñëwee indiwul preuve ni la yow de yaa ñuy war a àtte yaa ñuy entendre preuve bi ma am ni kii lii la ma def mu ngi nii. indiwu ko non kooku amatoo dara loo war a def. ba yóbbu feneen président Ousmane Sonko lii muy wax nag non c'est de bonne guerre fii mu taxaw ak taxawaay bi mu taxawee. man dama ciy gis sam bopp d'une telle façon parce que ñun suñu génération bi ñoo bokk génération bokkut ak génération ñoom Macky Sall ak ñeneen ñi parce que ñoom seen génération bokkut ñun ñun fit bu dee fit kese la ak ak njàmbaar ak jom mhm. non ci suñu génération bii la fëse ci la feeñe parce que Ablaye Wade bi mu daa wax daa am fit dafa am nangam noonu booba ñun ñoo doon ay xale mhm. nekk ak moom di ko def di ko di ko may doole mhm. kon bu demee ba nekk mag ñi nag parce que léegi ñun ñooy grand yi ñoo nekkoon booy bi fi Ablaye Wade nekkee léegi ñun ñooy grand yi bi fi Macky nekkee ñoom Macky Sall ñii ñoo leen ëpp fit fuuf parce que suñu génération bii amul lu muy tiit amul lu muy régal te jàngal nañ te xam nañ fi mu bëgg yóbbu suñu réew li tax am réew defaru non fit da cee bokk li tax am ri am réew am croissance boo xam ne day mën a inclusive am croissance boo xam ne dafay mën a pousse ñenn mën a sentir développement. Mm-hmm. ba nit ñi yëg ko li nga xam ne mooy mooy mooy sooklu programme passé. Mm-hmm. noonu loolu il faut bu ñu koy def il faut que ay nit ñu dëgër ay nit ñu am fulla ay nit ñu mm-hmm. xam leen ni def taxaw. te loolu moo feeñ ci ñun suñu génération. Ousmane président Ousmane Sonko nag loolu la taxawal yoon wi lii fa waroon a ragal gi justice ak néew doole gi justice néew doole. feeñ na ci camp bi parce que mënuñu renvoyer procès bi yónnee ko renvoi ci chambre criminelle ca ba pare joxuñu ko date de jugement moo tax moom tamit mu xam li muy def xam li muy xeexe wax ni bu ma woowee du ma dem parce que wooguñ ko waaye bu fekkoon daal doon nekk dans une justice dañoo am justice boo xam ne lii muy def santuñu ko da koy def parce que ci aqulaay taalaam la koy def li président Ousmane Sonko wax bërki dëgg warut a fanaan këram ñun bu ñu yoree justice bi bu fekkoon ñoo yor justice bi nekk ci dëgg. di doxal dëgg nii def kenn waxuñu dicté wuñu li ñuy def. président Ousmane Sonko ñu jox ko renvoyé renvoyé dossier am. ci chambre criminelle moom ñu jox ko ay prérogatives am yuñ ko faveur yuñ ko may ba tax kenn. ci parce que crime la viol lañ ko ah, ah, kii. Mhm. viol lañ koy ji ñu ngi ko criminalisé effectivement. kon danga ko waroon a téye. Mhm. bu ñu ko téyewul bàyyi ko jox ko liberté muy dox mu dem ban renvoyé procès mu taxaw wax ni man duma dem wuy mu am na fu mu ko teg. c' est parce que justice bii bu doon justice su dëkk non bi mu waxee lool du fanaan kër parce que juge bi dana ne ah comme kii wax na moom jël na intention ni du wuy si. da koy dëkk na def li ma yoon may damay bala muy daw wala bala muy def nangam wala booy muy nangam parce que ju justice noonu la war a doxee. daa war a di njort mais ñëwewuñ ko jëli parce que nan bu buñ ko jëlee dañuy taal réew mi parce nekkuñu ci dëgg bu nekkoon ci dëgg nekk ci dëgg wét ci ak bañ cee wét moom la war a jaral ku mu manti doom ndax la muy jur moo gën bu nekkoon ci dëgg dana war a jëli Ousmane Sonko waaye nekkuñu ci dëgg Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg. d' accord léegi nag suñ ñëwee ci loolu ndax gis nañ taxawaay bi nga xamante ne seen leader di Malick Gakou euh, am na ko ñu ci dem registre su nekkee mën ngeen ma illustré la ak image conférence de presse bi ni ki dem moom jot naa gën a fir fir euh, li nga xamante ne moo di njàppalam jëm ci Ousmane Sonko waaye itam euh, ànd gi nga xamante ne ànd nañ ko ci biir coalition Yewwi Askan Wi loolu itam kenn du ci kenn du ci ñëwaat waaye tamit ci ci yéen ñi nga xam ne yéen ñii i activité politique conférence de presse dem seen leader président Malick Gakou gën a dëggalaat boppam ci élection yi nga xamante ne moom la ñu jëm ndax yéen au niveau de de votre segment foofu noonu je pique ndax euh, engouement bi nga xamante ne war na amee ci candidature bi ak euh, li nga xamante moom ngeen di doxee ci seen ci seen parti ndax yéen yéen koy waajal bu baax baax. waaw ñoo ngi koy waajal bu baax bi nga tuddee. may nuyu le président Malick Gakou vraiment. di di wax sama fierté ci li mu nekkee sama président nekk suñu président grand di wax attente am ci moom yëpp chaque jour que jëfee mi ngi ñu koy wan. ci posture ci dëgëraay ci xam-xam ci xel ci rafetal ci nekk homme d'état te loolu lañu soxla ci koo xam ni daa bëgg defar réew. ci dalam ci bëgg jàmmam surtout ci am nekk boo amee koo xam ni da ngeen toog ngeen di waxtaan ci li jëm ci day développé yow maa ngi ko sooy waxtaan ak moom. du la wax lenn lu dul lu lay avancé loo lu lay développé loo ci développement personnel sax wala ci développement communal ci développement dëkk. Mm-hmm. lépp lu muy wax ci luy jariñ réew mi la muy un homme d'état muy koo xam ni yaa suñu yaakaar ci moom daal yàlla bu ko yàlla tas parce que xam na ni fi réew mi bëgg a jëm demee non président Malick Gakou moo ko mën a def parce que moo mën a fédérer force yëpp parce que moom président mali Gakou ngay gis candidat boo xam ni moo jubóog candidat yëpp. amu ci kenn xaar ma yàlla ñëpp respecté ko mu respecté ñëpp. Mhm. parce que gis nga respect tamit dañ ciy wax toujours ci respect respect respect mais respect contrepartie respect respect la. respect respect réciproque effectivement. contrepartie respect non respect la dafa jox ñëpp respect moo tax ñëpp jox ko respect entente bi ngay gis ni mu am entente ni ak le président Ousmane Sonko non jéggi na day entente boobu la am ak yeneen président yëpp ba tax na non c'est le cinquième président de la République. Malick Gakou sera le cinquième président de la République réew ci loxo Malick Gakou lañu ndax jàpp ngeen ni yéen actuellement am ngeen doole jooju noonu bu leen fàtte ne Ousmane Sonko tamit moo ngi xam nga xam nga parti xam nga pays. Mhm. jël pays du doole moo koy maye. jël réew jiite réew doole mayewu ko parce que kenn amul doole amul kenn ko am doole joo mën a jël réew. doole politique bien sûr moom non amul kenn ko am doole politique joo mën a jël réew. réew waa réew ma. Mhm. ki leen doy élection ñu dem votel bu doon doole wala am doole mooy joxe réew Macky Sall du mus a nekk président de la République ndax bi muy jël réew mi kenn boolewu ko ci woon kenn xalaat ko kenn mus ta xalaat ni Macky Sall mi moom ci boppam gëmul loolu ni dana nekk président daa bokkoon rek waaye xamoon na ni du mënta nekk réew jël réew mi waaye bu yàlla ñëwee nag. <laughs> population bi yi nga xam ne mooy choisir parce que population man constitution bi sax li muy légitime légitime non population moo gën. gën mhm. a population bi mooy décider mooy mooy mooy sànq li nga doon wax ci ni. est-ce que mënuñoo bàyyi li daloon Abdoulaye ñu dem ba élection d'accord parce que bu ñu demee élection population bi dina décider mais li tax du duñu mën a nangu mooy Macky Sall dafa teg ay filtre yoo xam ne dañ ko nangu ñu voté ko assemblée boole ko ci constitution moom muy choisir ñiy dem élection su boobaa mën naa choisir ñoo xam ne su demee élection day day remplir su boobaa du bokk du tomb fekk day du day fekk du bokk ak li nga xam ne moom la volonté population bi te population bi fi mu ne. loolu mhm. moom mais su fekkee dafa dem légalement élection yóbbu choisir ak conseil constitutionnel ni ñi nga xam ne ñooy dem élection mais ci musiba lañ d'accord loolu moo war a tax nag ñu bëgg war a taxaw tem taxaw taxawaay boo xam ni il faut que mu xam ni su jàllalee candi conseil constitutionnel jàllalee candidature am lu xew ci réew mi mais moom déposé gul waaw xam nga ca la jëm xam nga ñun. waaw léegi taxawal ma laaj mais ana yéen yéen waa opposition lu tax ngeen ngeen gëm ne président Macky Sall déposé candidature parce que ñoo jàngal ni ñu gérer c'est prévoir ñu def ay ay ay ay projection ci li xew suba. mais lu tax du leen du déposé. non dañuy déedéet parce que li mu wane yi nu gis fee yi nu gis. Mhm. lépp daa wane ni moom day dem déposé parce que bañ ko ci laajee ban ko ci mujjee laaj. Mhm. dañ ni du ma ci wax. D'accord. Ni oui, ni non.